dugg ci. Ah, bien sûr nee na dugg na ci parce que parce que voilà moom sax def na def na tweet euh, Ousmane hmm. def na léegi euh, tweet di wax ne euh, ma voiture est bloquée depuis plus d'une heure par la gendarmerie commandée par le préfet de Dakar ce préfet a été surpris en train de dire qu'ils vont décerner un mandat d'amener pour me cueillir de force. Personne n'a le droit de me choisir un itinéraire. J'ai fait constater par huissier en, euh, en, conséquence. Je suis un citoyen libre de ce mouvement. Mmh. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces graves violations de nos droits. Mhm. maanaam bu ñu ko doon tënk rek ci wolof nee na euh, li nga xam ni moom moo di oto bu mu duggoon dafa daal di bloqué dañ ko bloqué durant euh, benn waxtu te yi moom moo ko bloqué sous le commandement du préfet de Dakar di wax rek ni préfet bi euh, daal di nañ koy bett muy wax ni dinañ ko yónnee mandat d'amener ngir daal di koy cueillir de force indi ko yóbbu ko ca tribunal te moom jàpp na ni kenn warulu ko choisiral itinéraire maanaam fu muy war a jaar ak fu mu warul jaar ndax jàpp na ni il est libre de ses jusqu'à présent di nag jël seede bi euh, jébbal ko ñi nga xam ni moom moo di ñëpp ñuy àdduna bi voilà noonu noonu la ko waxee euh, lan nga gisee euh, mbir moom. mais wax na dëgg xam nga maa ngi koy wax sànq. yaa ngi ma koy mhm, laaj rek ñu koy souligner par rapport ak juste ba ñuy soog commencé. góob ma ne gisuma ne quand war nañ ko mën a wutal itinéraire d'autant plus que ne mën nañ ne ba fii tout se passe bien. parce que boo fàttali ko diggante première conférence bi wala déclaration bu mu def parce que deful conférence de presse. déclaration de presse defaat beneen deuxième déclaration. defaat beneen bi nga xamante ne moo mujj démb. mais lépp boo xoolee quand xëy na bi nga xam ne moo njëkkoon. il était très chaud. oui. appelant même à la résistance. bu ci topp également on l'a vu quand droit dans ses bottes. droit dans ses bottes mais démb quand même gis nañu Ousmane Sonko. Euh, mu gën a maanaam mu ñu mën a gën a sedd mais quand déclaration boobu moo moo moo gën a sedd par rapport bi nga xamante ne moo di la dernière déclaration muy la deuxième wala l'avant-dernière bokk su la neexee pour mieux m'exprimer ainsi. Mm. donc dégg nga aussi lu mu wax ndax ki nga xamante ne moo di sëriñam euh, ñu koy nuyu au passage moom ci boppam ñëw na ñaan ko ne ko bu ma sañoon nga dem wuyu donc il a décidé vraiment d'aller répondre et puis en suivant également aussi les conseils de également décision bi mu ngi taxaw pour def également ay jéego pour dem moo je me dis que également aussi de l'autre côté war nañ ko mën a yombal de telle sorte que aussi mu mën a dem librement wuyu li nga xamante ne moo di la justice mais aussi bon ça se comprend c'est un leader politique euh, ndax nee na c'est un combat politique c'est pas une affaire privée te également aussi le fait que d'accentuer la pression également sur le camp d'en face da koy bu ko aussi da koy parce que le fait de voir également tout ce mouvement de foule bu ko c'est une façon également d'accentuer la pression de l'autre côté loolu yëpp dafa bokk ci stratégie nga xamante souvent les leaders de l'opposition dañ koy faral di ah ce qui s'est passé à l'UCAD xam nga yaa ngi étudiant mhm. euh, parmi ses militants c'était sinon c'était chaotique te man wax naa ko fii en réunion de rédaction nee naa leen je suis sûr et et persuadé que su fekkoon ne UCAD la sécurité yëgoon nañu Ousmane Sonko dina fa ñëw duñ ko bàyyi mu dugg

disent qu'ils n'ont pas de travail, ils sont fatigués, ils sont euh, assaillis par le chômage, ils se voient quand même à travers Ousmane Sonko. Donc du coup aussi, l'État, voilà, les forces de l'ordre, je ne pas l'État, il y, a une politique là-dedans, hein, parce que des... quand même. Mais aussi, d'un autre côté aussi, ça peut se comprendre un peu, parce qu'on a vu ce qui s'est passé aussi la dernière fois chez Ousmane Sonko. Boumou fait sa déclaration au lendemain, attentats par-ci par-là. Pour éviter ça également, il faut que les forces de l'ordre veillent également à la sécurité des biens et des personnes. Moi, je me dis que vraiment, lii c'est une image assez déplorable, aussi bien de part d'autre, comme pour l'opposition, comme pour que, le pouvoir. Parce que euh, ah. euh, dispositif bi nga gis li déployé ci ay forces de l'ordre gendarme yi nga gis euh, euh, matériel yi nga xamante ni euh, dispositif sécuritaire yi ñu yi ñu génnee am na ci yoo xam ne man tour yi sax xaw ma ko tellement man ah, ça me choque ci ne compte pas sur moi défilé défilé avril ba 4 avril laa koy laa koy gis alors là ñu def ko pour quelqu'un boo xamante ni c'est opposant est-ce que nekkuñu en quelque sorte di ko euh, promouvoir c'est-à-dire indirectement euh, def campagne am Ousmane Sonko bi affaire bi amee ba tey gis nañ combien de gens se se euh, se sont rendus ci këram tout tout tout toute catégorie de la société mu nekk chef religieux